tey du ko weccoo ak soxna. sama soxna mu ngi may muñal ay défaut man ma muñal ko ayosam ñu ànd muñalante ko suñu kër. ba kon na la muñal sa wetu ndey ndey bi na la ko muñal. déedéet xam nga moo tax. na la muñal sa tàngooru ndey dama ma mu muñal bañu koo muñal. waaw waaye moom est sama ndey dina ko muñal muñal ay défaut. saw yoon ah, sans que fendi nga bàyyi rek ah kay naa ko fendi mu ne ko bàyyi rek mooy irresponsabilité yow da nga xam sa ndey lu mu def da nga xam sa ndey lu mu def fekk ko sama ndey def sama jabar da ko war a def lu tax lan mooy ci saw yow lu tax sama jabar di def sama ndey def ne ko mu lu tax sama jabar di def li sama ah, ndey def da nga bëgg mu neex mu ñëw waaw maa ko takk jënd ko ci kër andi ko ci kër dama koy dundal mu neex daa war a fekk lépp lu neex lay dund ah, maa ko takk négal ni ndax loolu laa bëgg samay jigéen am am ko loolu laa bëgg samay mag am ko ku ma takk loolu laa lay ngay wax ak man may wax ñii ñooy wax ak yow ñi ngi ñëw ñii di wax ak man xam nañu li may wax dama ne pour trouver une solution damay berok sama njaboot yar demal éviter à ma mère des problèmes parce que ki may takk mënuma ko cerner a cent pour cent xamuma défaut yi ne ci moom. damay éviter à ma mère. demain sama jabar ko loo xam ne déception lay. ut ci moom séparation am. waaw j'évite à ma femme de supporter certaines humeurs. yoo xamante ni xëy na yarewuñu ko ko. certaines humeurs ko ko en am na noo xamante ne nii xamante ne nii. bëgg naa mu mel ko mais munu ko ni mel dama ko koy muñal ay défaut la ci moom. ñu ànd beru ma bàyyi sama yaay di ko toppatoo weer wu ne ma jox ko alal ju bari mu dundu solo ko mbubu yu rafet. doo ko jox dara yow mi yóbbu sa soxna su la nee doo ko ko jox doo ko ko jox. jërëjëf euh, Ben Benoît ñu bàyyi la kàddu gi numéro yaa ngi noonu affiché au bas de l'écran donc tout à l'heure di ngeen mën di woote papa. respire maa ngi ñëw ci yow. waaw Safia bàyyi ma bul ma yërëm. man dama yaakaar ne. bul ma yërëm bàyyi ma dama Safia. kon ma jox la ndox bàyyi ma. dama yaakaar sa suñu société dafa am benn façon pensée boo xam ne dafa tàllal lal bi déglu ñu wax sañu fi nga wax ay bugaan ay bugaan dafa dugal ci oto boo xam ne dugal ci oto eh, eh, eh, filmé nga oto bi filmé nga oto bi filmé nga oto bi ci oto bi la ma bugaan dugal barka borom tuwa mais naat bu doon léegi lal bi daal di xàttal bi ko mu doon ab salon ak salle de réunion ci biir ma wax mu ne ma xëccal frigo bi ma ne nii benn bouton frigo bi daw génn ba tegu samay ëpp mm-hmm. barka borom tuba mbàkke du dëgg. waaw mu jox ma fukk junni ñuy daw siif ko. dëgg la waaw billaahi wallaahi fukk junni la ma jox saa ñu daw ki daal di may siif nangu ko. Ah, mu taal oto bi. daal di may ne seen TV sa kër la yow yaa ko moom dara jëy Ahmadou Bamba lii la ma ne ma ce n'est pas ni pour Bougane ni pour personne mais yow moom. ma ne ah mu ne ma maa ngi ah, yow Bougane xam na xam naa. mais yow daw ma liggéey la daloon. dafa am baale ma baale may leen yaram bee sutante woon s'il te plaît lan moo la daloon. père may gone dafa bëgg ma wax musiba. non man bëgguma wax musiba waxal lan moo la teree loolu la loolu la bëgg waaw lan moo la teree ñëw loolu la xam naa li nga bëgg. lan moo la teree li ma bëggaan wax laay def duma la ko duma la ko. lan moo la teree liggéey kii dafa bëgg maanaam.